li demee ba àdduna di dox ba góor léegi naan man duma takk cas social loolu le monde part à l'envers c' est un rek ma jàkkaarloog yéen. Mm-hmm. waaw macha allah c' est plaisir nga jàkkaarloo ak ñun waaye comme ni ma ko waxee woon sànq sama yaay rek. Euh,

ji les années passent ba àdduna di dox di dox di dox ba tey man ak euh, Pape Demba bokk li nga xamante ne mooy projet mm. à travers Marodi ma koy saluer bu baax a baax aussi si passage bi parce que c'était pas évident nekkul woon loo xamante ni mës naa ko xalaat mm-hmm. donc may rafet la loolu Pape mm-hmm. Demba c'est un frère de sang même mm-hmm. c'est un frère de sang comme ni ma koy waxee rek suñu borom may ko muy jël tey soxna euh, soxna soosu yàlla nattoo kaa ko muy sëy ak koo xamante ne célébrité la li ñu koy waxee sëy ak célébrité yombul mm. bu doon ay kàddu conseil ak ñaax yan kàddu nga koy doon moom suñu jabar <laughs> suñu jabar ji de defuma lu dul kontaan bi ma Pape Demba wowe téléphone ne ma day euh, jël soxna. Mhm. mané ko vraiment mérité nga ko ndax bax nga mhm. yaru nga teey nga té aussi euh, message bi nga xamante mom lay laay suñu soxna soosu madame Femme dama ko naan rek mu japp parce que c'est vrai que say célébrité c'est pas facile. Mhm. honnêtement ñun xam nañ ci dara mais nako jappé talibé jàppee bi mu doon. ça c'est la base pap Demba la euh, Laxaat talibé la avant toute chose ay actrice acteur yooyu yëpp on met ça de côté buñu génné plateau dañuy simi li nga xamante moy ko costumier et tout ça on met de côté ñu dund suñu euh, vie naturelle mhm. donc nek na nit ko oyof nek na nit ko jàmbaar nit ko am sutura donc nako xol ci lolu et puis ñom ñaar ñu muñalante parce que ay jeunes lañ aussi ay jeunes lañ euh, ci say ak célébrité yombul bokay dégg fan nga koy déggé ci jafé jafé bi euh, ci jafé jafé bi man je dirais parce que déjà da ngay gis ni que par exemple suma ma exemple ci man. Mhm. Samira tay ñu né marié wu na dañ naan ah Samira bu TFM la wala Samira actrice bi wala mhm. Samira alors que Samira en dehors de tout ça là. bu paré li def yépp da koy tek de côté. day nekk ben nit bo xamante elle est pieuse elle est joviale. Mhm. elle est tranquille et tout ça donc euh, fofu lay waxé man ci contexte bobu ci contexte bobu ngay waxee muy lu am solo waaye à chaque fois tay euh, Sénégal dañu koy faral di wax sëyu artiste yi du yomb métier bi fan la. Euh, fiir bu métti wala succès bi ngeen di doxee bés bi moo tax duñ leen comprendre wala lan la lu mooy waral say artiste di métti. non succès moom amu fi. Mhm. succès amu fi buzz amu fi kenn moo fi am succès kenn moo fi am buzz muy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mhm. mais sinon li ci des yëpp ah ñun euh, ay nit yu xeebu lañ. Mhm. donc man gisuma lu fi métti de. donc y a la communication à la base. ci génn bi et tout ça ba ni ngeen di sëyee pour man warul am dara lu métti man daal gisuma ko. loolu moom je je dis je suis pas d'accord. Mm. Euh, yaa nee na bi ñu fi ñëwaat yàlla nañu fi woo ñu làngal la kañ ngay fay bor bi xew bu ñu dem nga lekk fa beñek <laughs> wàññi leen ni ngeen ah, léegi rek très bientôt incha loolu mën a nekk la sama yaay moom su ma ko waxee su ma ko ñaanalee lu mu war a def la. Hmm. et euh, man aussi dama ko naan léegi rek incha allah ñoom tamit ñu daal def seen délégation rek yéen tam ngeen topp ci. Hmm. Hmm. mais dàqaate mooy wax damay dàqee. dàqaate rek ngeen mooy wax yooyu su koy daf ma yàq rek. mais dégg mën a dàqaate. non non bilaay du loolu sax dàqeewu ma de. Ah, ah. léegi rek. léegi rek. incha allah. Hmm. Hmm. mais euh, jamono ji gis nañ macha allah liggéey bu am solo bi nga xamante ñu yéen a ngi ko doon indil Sénégalais yi. ci euh, série bu bees bi nga xamante ñu ko rek sétane muy muñal. Hmm. nga ñëwaat indi fa beneen facette bo xamante Sénégalais xamé xamee ñu ko ci woon. lépp rek ça montre que ne liguey bee ngi avancé. absolument ci série boobu noonu lan nga ci mën a partager ak Sénégalais yi. waaw série boobu en fait euh, à la base court métrage la woon. loo xamante ne dañ ko jagleeloon jigéen ñi ci mois de mars bi le 8 mars et tout. donc ñu def ko et ñu jël. en avant ñi nga xamante ne mooy les femmes ñi nga xamante ne ñi ngi dund ci société bi mm-hmm. mais ni nga leen di gisee Euh, ci biir ménage mm, demeewul noonu mooy ñi nga xamante ne ñooy les femmes battues wala ñi nga xamante ne ñu ngi subir violence verbale ou conjugale dans les deux sens la ñooñu lañ bëggoon mettre en avant pour sargal leen pour wan leen ni que yéen a ngi muñ mais mën ngeen muñ mais ci aspect bi di leen wan ni que mën ngeen muñee ay euh, genre mën ngeen defee nii wala mën ngeen defee ne comme li ñuy wax fiction la d'habitude mais généralement boo ci xoolee di ci tiré ay leçons de morale yu bëri. Mm-hmm. waaw saa su ne lépp lu ngeen di def lu ne rek jàngale ngeen ci euh, jublu waaye jàngale bi ñu bëri ci Sénégal yi daf leen xaw a ragalloo ci ñu dugg ci sëy ndax fi ngeen laal moo saf. ah non bu mu leen ragalloo ah. Hein. bu mu leen ragalloo parce que ñun bu ñu posé problème tout le temps dañuy posé ay solution bu ngeen seetloo en général. Mm-hmm. mais dafay laaj euh, parfois borom xel mooy mën a li nga xamante ne décortiquer li nga xamante ne mooy série yi parce que man je dis que. non yéen seen yéen seen kii yi ngeen koy xalaatee tamit arrêté leen. <laughs> on est des acteurs. on est des acteurs. on est des relater li est des les faits de la société. Mhm. donc si euh, ñu que parfois on yenn mots on yenn métiers yoo on des surtout ben, problème

mais ñun tamit boo seetloo ci biir muñal ñi ngi wane ni que d'accord mën nga sagal mën nga suturaal waaye day baax aussi nga def li nga xamante ni mooy la communication boo ko mënul ak sa partenaire def ko ak ki nga xamante ni moo la sukku jur muy sa yaay c'est important parce que léeg-léeg gis ku muñ euh, ba amee ci AVC. Mhm. wala ba amee ci ay feebar yoo xamante ni vraiment su partagé woon li nga xamante ni mooy problème am peut-être dina tane. te ñun suñu société peut-être foofu lañ tëlee duñu duñu duñu communiquer lu bari. waaw mm-hmm. loolu la rek. mais bu ñu seetloo ci jàngale bi li nga xamante ni moo mu muñal gis nañ ci tey sëy yi euh, pression parent yi. bokk na ci li indi divorce yu bëri yi nga xamantene moy mooy am ci biir sëy ndax mën nañ ko seen saka cas. baye nit ak choix personnel. Mm-hmm. Mm-hmm. ñen ci parents yi duñ ne ñëpp aussi. ah ah lool de xana nga laaj ko parents yi rek lool lool mo jaaxal ñëpp. Eh. man parfois damay tok ba ci yàgg sur les réseaux sociaux dañ may bind ay messages yónnee ma ko et tout naan ma dama am problème bi ci sama bir sey dama am ni dama am ni mais do xam exactement naka nga leen di dimbalé tu leur dis tout simplement ah, xaaral waxtaanal ak sa yaay wala waxtaan mais loolu je pense que la question. Euh, dañ ko war a poser ñi nga xamante ne ñooy parents yi parents yi lañ ko war a poser parce que jaaxal na ñëpp parce que ki bëgg euh, nit ki mu takk ko yow nga ni ko choix bi laa koy defal et tout ça loolu ça paraît très compliqué. nit ki bu sa doom bu bëggee nit bàyyi ko mu dem ak kooku moo gën nga koy naan non kii laa lay tànnal comme sama cas man doom mu ñël c'était pas évident là la conséquence bi mi ngi noonu par la suite dama ñëw ne sama yaay damay tas bi parce que metti na koo bëggul doo ko muñal comme on a l'habitude de dire mhm. comme doo ko muñal nag moom day xaw a compliqué torop donc loolu moo tax rek may ñaax parents yi aussi ñu euh, jàppale seen doom mhm. ñu may leen yi nga xamante ne ñooñu lañ bëgg ñu sëy te yàlla tax waaw mhm. ñu bañ a xool alal surtout ñu xool xool alal surtout euh, boo dee faral di dégg ñu ne artistes yi duñu ay sëykat nu mu lay def en tant que artiste. non ça me fait très mal honnêtement ça me fait très mal parce que euh, artiste dans le mot artiste il y a de l'art gis nga aduna lepp loy def dang koy exercer. Euh, nit xëyul xëy rek nek artiste wala dara man mi di wax ak yow ku togon euh, il y a 10 ans de cela di ma wax ni que dina def cinéma duma ko mës a gëm parce que dafa ñëw par pur hasard dañ ma casting ci li nga xamante mom la doon def émission Saint TV mhm. ñu xol sama caractère et tout ça ñu jël ma casting pour Série euh, Mœurs mais bima ci duggé dama xamné li du caaxaar du ay faux dama gis ñoo xamanteni dañ ci tarbiyu am ci seen diplôme et tout donc moi aussi je dois aller def li nga xamanteni moy ay recherche te baña sofantal seen métier bi donc mu nekk métier bu noble bo xamanteni képp ku ci dugg yaakaarna euh da ngay xamni li métier la comme ni ki di nekké ci bureau comptable bi di liggéey comme ni kee nekké ci chantier di liggéey et tout ça mais quand on dit que euh sa phrase boobu nga xam ne dara neexuma ci mënul nekk jigéen ñi dañuy sëy parce que bah oui ki toog ci bureau bi ak ki nekk ci télé bi di liggéey ak ki nekk ci théâtre yi c'est la même chose c'est la même tête xam nga donc ñun dañuy jàpp ne lii liggéey la mais buñ ci paree on a notre vie on a notre vie personnelle loolu man euh, c'est des pensées tellement arriérées yoo xamante ne peut-être par pure coïncidence moo tax ñuy wax parce que mën nañ méngale ni artiste bi ak artiste bi tas nañ ils se disent que waaye en général c'est ça artiste yi duñu duñu duñu duñu mais je pense que ñëppay sëy fii ku bëgg sëy da ngay sëy mm. après tamit nit ki bu demee ba tas il y a une raison

mais xalé jigéen aussi tamit duñ cas social. non non non lolu xam nga sax ci jigéen la daan fekk baax avant nga naan ah de mais buñu ba aduna di dox ba naan man cas social lolu le monde part à l'envers en fait c'est c'est complètement à l'envers mm. donc euh, nañu ñu motalante man pour man fekk mën naa ñëw fekk élage muy taaba taaba di taqale man ma nekk ci sama domaine di taqale mais mën nañ sëy ci jàmm nga xamante ne euh, yàlla bu ñuy jàppale dañuy jàppale ñuy cheminer pas à mais euh, voilà bu ñu seetloo bëgg ñëw dugg ci loo xamante dañuy fekk lépp nooy waaw bëri na fi loolu seen choix la rek. loolu seen choix la mais bu ñu ci duggee tam dañoo war a tiit. Hmm. waaw parce que doo dugg ci dara fekk lépp pare. bu boobaa da ngay tiit da ngay da ngay da ngay tiit normalement

non non ñun duñ ci dara vraiment ñun moom bàyyi leen di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu xas tout le temps duñ ci dara góor bu amee tànk fulla ne damay jug dem labat benn soxna vraiment bu mu ci xool euh, nekk ku jigéen ki dafa nekk nitu intérêt wala dara non non c'est-à-dire am na yoo xamante ne buñ koy généraliser je suis pas d'accord. Mm. je suis pas d'accord parce que am na partie boo xamante ne ñoom loolu mooy seen feeling loolu lañ bëgg mais am na ñoo xamante ne boo demee na nga leen fekkee woon ci seen éducation ci seen valeur ci seen lépp noonu lañ mel. da ngay mm-hmm. ñëw rek jàppale leen nga sëy ñoom ci jàmm ak mm-hmm. salaam wa mm-hmm. macha allah yaakaar naa ne loolu kàddu yi ama am euh, solo la waaye ba tey ci liggéey bi ngeen ni ci fans ak soppe nam nañ la lan nga leen promettre ci retour bi. <laughs> mais maa leen raw maa leen raw nañ ñu xaar ci li nga xamante ni aussi mooy emprise. Uh-huh. ndax euh, yaakaar naa ñun ñoo gën a namm emprise sax que fans yi. Uh-huh. Euh, récemment sax ñu ngi ma nominé ci li nga xamante ni mooy Only Woman Awards ci euh, second rôle may jigéen dans emprise. Uh-huh. ma koy rafetlu bu baax a baax ce qui veut dire que sénégalais yi ñu ngi koy seetaan et à travers même le Sénégal bien avant hmm, da ngay gis ni que nit ñi dañ la daan message tout le temps nga ni waa kii kan la kii fan la jógee kii. nekkate au fait c'est la sous-région.

toll ci moment boo xamante ni Sénégal ñëpp ci pression la ñu taxawee ci réew mi mën naa tàq mën naa bañ a tàq euh, kàddu sensibiliser pour gën a dalal xelal ñi nga xamante ni ñoo di askan wi yan kàddu lay doon. waaw li may faral di wax benn mot bu gàtt la mais c'est très important muy jàmm. la paix ci la lépp xaj. ñun Sénégal ñu ni neen la. loo gis dañ koy waxtaanee que ça soit au niveau du gouvernement que ça soit ci chef religieux yi et tout ça nañu wootante ñu waxtaan. parce que waxtaan mooy indi jàmm c'est ça la communication elle est primordiale mais dëkk boo xamante ne xiiroo ŋaayoo vraiment ménage yàlla nañ ci yàlla musal suñu ay doom sax dañuy tiit suñu ay rakk ñoom bu ñuy jàngi ñun suñu xel yi duñu dal mm. ndax gis nga ni dëkk bi déjà y a l'insécurité bi fi mm. nekk kenn mënul wax ni que nga mën a def pour mu dañ wala nii mais dañuy ñaan yàlla li nga xamante ni mooy jàmm rek mu sax ci Sénégal bu baax a baax mm-hmm. loo bëgg a laaj ni soo ko gisul boo gisee xaritam mën nga kaa laaj coow li bëri na abaa de tax ñaari ah <laughs> man daal benn jour nee ko euh. gis naa muy foo noonu def ci statut ma ne ko abaa mu ne ah ma ne ko boo takkee ñaareel ñun waa Ouest Foire ñooy def coalition génnee la Ouest Foire ah yow mi ci am suñu jigéen la. Ah, mami kay lii du ndam de. vraiment waa xaar na ko fi liggéey na ko fi mais mm-hmm. ah, ñun waa Ouest Foire moom daal bu takkee ñaareel. na ko yóbbu feneen Ouest Foire moom bu fa tere ne lu tax dañ koy yàq dañ koy sànni xeer ruube ko <laughs> yooyu la ñuy def. <laughs> mais kontaan nañ vraiment ci jàkkaarloo ak yow ak kàddu yi nga xamante ne aussi partagé nañ ko ak ñu ñuy bàyyi xel ma bala rek nga joxe dernier kàddu yi ndax xam nañ ni temps bi nga xaw ko. waaw exactement donc euh, di leen remercier bu baax a baax rek Elage mhm. euh, di remercier sa collègue yi également di leen jox euh, peut-être rendez-vous très bientôt parce que les projets sont là que ça soit les projets personnels et surtout projets yi nga xamante ne mooy emprise mhm. man moom je pense que bu ma un euh, muñal ak emprise damay baye dal waaw man mom la xalat damay baye inshallah nek xam nga da nga wara euh, bi day dem da nga ci yor sa famille fonder une famille tout ça donc euh, la dal mais très bientôt et puis di len bu baax non da ngay ci il faut savoir tourner la page. Hmm. Hmm, dafa wala. Hein? ah bu dañuy mu boole bu fekkee borom kër dafa dikk dañuy bëgg avant. waaw ñambaas ko si daal daw génn. waaw daal daw génn est-ce que fii moom jox nañu ak fekk une semaine wala deux semaines. est-ce que tamit dafa am ku yónnee coïncidence. non non non non non c'est loin de là en fait c'est une c'est une belle transition bala ngay bàyyi bala jëkkër di ñëw. exactement da ngay def transition bala jëkkër di ñëw wala yeneen projet di ñëw da ngay ci li nga nekk nii tu te dis que loo commencé il faut mu am fin. 2019 ba tey maa ngi ci mars maa ngi ci bëgg a yàgg suñu sœurs yi ñi ngi ñëw et ñi ngi jàng métier bi ñi ngi koy ñi ngi ciy exceller macha allah donc man je me dis que jëkkër taxawul yàlla rek xamaa suba mën nañu ne Goro West donc loolu moom duma ko assurer mm-hmm. mais euh, li tax ma bëgg a arrêter li nga xamante ne mooy série ak télé dama bëgg a focus ci li nga xamante ne mooy samay projet personnel waaw mm-hmm. mais est-ce que Sénégalais duñu gis ni carrière bi dafa gàtt ndax boo xoolee gis ko ci def 25 ans 30 ans de carrière yow defoo 5 ans ne da ngay arrêter waaw mais xam nga objectif yi bokkul ku ci mel ni sama yaay Ndey Kumba moom mm-hmm. ci ci ci ci ci art bi la nekk depuis boobu depuis ay années ay xale juddu nañ fi màgg et tout ça parce que en fait choix am la man tamit sama choix mooy que euh, temps bi laa ciy def. Mhm. li ñu naan taaru jigéen sëy la tam. ba xam nga ni c'est important. c'est important donc loolu la rek bu ma ci paree moom après damay nekk samay projet personnel commencé koo doxal carrément après euh, ma def transition bi daal di dugg ci sëy rek gérer sama famille. Mhm. waaw doon ñaanalal maam Ali ak am Sall am jabar. <laughs> waaw ñi ma gis nii xaaj bi yëpp ay célibataire ngeen waaye yéen. teewal <laughs> suñu kilifa Xalifa Ababacar mooy suñu kilifa. <laughs> waaye buñ coupé caméra yi ñu tàllal loxo ñaanalante suñu biir. man ñi ma gis xaj bi ay kii lañ ay célibataire yu bon a fi nekk ak seddaay bi nii xam ngeen ni muñ leen rek yàlla baax na xam nga seen bopp ñu naan dañuy ñëw ñaan ci sax mayoo ma ko mayoo ma ko bu fekkee loolu la sax léegi may naa ko sama bopp yow soof waay day nañu waar tamit naa bu baax a baax merci merci beaucoup El Hadj et à bientôt incha allah kontaan bu